dana yombal dundu doomu aadama bi ci zaahir ak ci baatin tey jii nag dañu ñëwoon ak yéen ci secret bu am solo nga xam ne moom mooy wàllu noob noob nag boo ko déggee danga nga li nga xam ne moom mooy baat bi ndax da ko yàgg dégg waaye nag njëriñ li ak li muy suyee moom lu jafe la mën naa jafe ci doomu aadama bi xam ko noob nag boo ko déggee mooy nga bëgg nit wax sax bëggu la ndax bëgg doomu adama bañ doomu adama amul ku koy def waaye nga bëgg nit ki te bëggu la nga sopp nit ki te sopp la soppagu la nga nekk ak sa borom kër te bëggoo li nga xam ne moom la am ci yow mbëggeel gi mu am ci yow mu wàññeeku wala mu dañ sax allahu boo jëfandikoo bi yàlla mën na laa defal jàmm ba nga xam ne da nga jot ci moom ci lu yomb yow mi nga xam ne nag yaa jëfandikoo secret bi na nga def attention bu baax a baax a baax ndax boo ko jëfandikoo incha allahu ki nga ko def dina mel ci yow noo xam ne incha allahu da nga da nga jaaxle ci sa bopp incha allahu ki nga xam ne nag moom moo bëgg góor walla moo bëgg jigéen wala moo bëgg boroom kër jublu ko wala moo bëgg soxnaam jublu ko xaatim bi moom lay bind. su bindee xaatim bi dafay bind turu turam ci kaw bind turu soxnaam wala turu boroom këram wala turu ki nga xam ne moom la bëgg moom lay bind ci suuf bu ko bindee ba noppi daf koy booleek juróom-ñaari puso incha allahu mu def ko téere ndombo boo xam ne dana am ñetti gaaw mu takk ko gannaaw loolu itam dangay bind li nga xam ne moom mooy wallaahu axad nga bind ko ñetti yoon xul auzu bi rabbi falaqi ñetti yoon xul auzu bi rabbi naasi ñetti yoon soo ko bindee ba noppi da koy sangoo lu toll ci ñetti fan loolu yëpp da koy boole def ko saafara sangoo ko ci lu toll ci ñetti fan soo defee loolu ba noppi itam dana am saafara boo xam ne moom lay àndal muy xaatim bi nga xam ne moom boo koy def sa tur ngay dugal ci biir xaatim bi ak turu ki nga xam ne moom nga bëgg mu sopp la boo noppee xaatim boobu saafara nga koy def fexe ki nga xam ne moom nga bëgg mu bëgg la mu lekk ci wala mu naan ci su nekkee ne soringante ngeen sori boo xam ne du ci mën a lekk wala mu ciy naan fekkee yaa ngi mën di jokkoo moom téléphone itam am na saafara boo xam ne looy gàllax la waxtu woo xamee ne incha allahu yaa ngi wax ak moom képp koo xam ne itteewoo nga xaatim yi nga xam ne moom lañ leen di wax noonu Insyaallah allahu joko ak ñun danañ la ko yombalal ba nga mëna ko defaral sa bop bu lay télé inshallah ku bëgg joko ak ñun mën nga ñoo o ci 77 286 38 79 77 286 38 79 incha allahu dinañ ci dimbalante ak yow wax la ni nga xam ne nga koy defee yépp ba nga defee ko fi nga nekk allah ñi ngi sant ñi ngi gërëm ñi ngi ñaanal ñëpp wa rahmatullahi taala wa